ñu ngi leen di ziar bu baax te di leen jox seen wàccuwaay di ñaanal sëñ Muntaxa Bachir Mbàkke mu gën a yàgg gën a wér ak njabootu sëriñ Tubaa gi yëpp ki noonu it di ko ñaanal sëñ Cheikh Jëmb at mboolem xalifa Seexub sëriñ Tubaa di ziar bu baax jëwriñu jotaay bi muy sëñ Moussa mi nga xam ni moo doon joxe kàddu yu seetlu yu am rafet yu rafet yi léegi di ñaan rek yàlla nañ suñ borom defal dégg ak topp di ziar bu baax a baax ak sëñ Baye Diop di ko ñaanal comme ni ko gaañu baax ñëpp ñaanalee suñu borom guddal fanam te may ko wér gu sax dàq ba liggéey bii nga xam ne wax dëgg yàlla moom ñun ñoo ko àndoon fu ñu teew mu teew fa suñu borom def mu mën a dellu siwaat ci ñun ba saa suñu jugee rek mu ànd ak ñun ndax liggéeyal sëñ Tuubaa bi moom amul wàcc ak wàcc ci liggéey bi moom yàlla na yéex te mooy bis bañ lay jëbbal boroom liggéey bi xëy na sax eh, moom bu jëwriñ waxee ba noppi moom deesul ci teg yeneen kàddu sax ndax daanaka lépp mate na waaye di waxee ci kàddu fédération bi rek te fii ñu toog bay wax tey xëy na bu fi jëwriñ yankoo ba toogoon moom mooy jot kàddu ji waaye nag comme sañ boroom dogal na ni mu génn te génn gi xaw a sori dañ ko fi teewaaleel rek joxewaale ay kàddoom teewaale fii walla organisation bi nga xam ne mooy xidma gi di nuyu bu baax a baax nag sañ mbokk yi nga xam ne ñoo bàyyee ko capital te sëñ maam Thierno Amar jiite ko ànd ko sëñ Assane sëñ Mot Sey ak sëñ maam Xaas mi sëñ góor bi nga xam moo yor xale xarale gi eh, daanaka li fi matoon a soññe moom moom ñëpp soññe nañ ko waaye dafa mel ni rek mu mel ni kaddu mot sa yeeg kaddu maam cerno yi damaa jàpp ni daa am ko ne ci mbooloo mi nag waxtaan ak ñoom laata ñu fii ñëw ndax wax dëgg yàlla waa Mourou war nañoo yëg seen bopp bu baax a baax a baax a baax seen kàddu yooyu eh, ndax bu ma jàppee ni tey ngeen fi mës a ñëw. wala boo gëjoon ngeen fi ba tey jii boo leen gisee nii mbooloo mi mel ak kàddu yi ngeen yëkkatee muy kaddu yi soññ defe naa ne kàddu yu safaanoo la wax dëgg yàlla waaye nag lii wane ne maanaam dëgg rek moo moo moo moo jara wax mooy mooy lii maanaam wallaay lazim xëy na safar gi nga xam ni maanaam moom la ñu lancé ne tey daa mbokk taalibe yoo xam dañuy jugee def caravane ñëw comme ni ñu ko defee fépp. damaa jàpp ne moo tax daara ji mel nii mu mel tey ñu war a nag soññaat sañu bopp bu baax a baax baax a baax ci liggéey bii nga xam ni sëñ Bala dañu woon ki ci ne di ko def sax bu yàggee ci liggéey bi day dem ba day jàpp ni maanaam keneen la koy defal ki koy seen nit muy liggéey mën naa dem ba jamono mu jàpp ni kee daa am ko muy liggéey waaye nee na bu demee ba jëf ji teew man xamala saalihan fali nafsi lu waaye jëf boppam rek ay feeñ nekk te waaja dana xam ne moom rek la doon jëfal loolu nag li tax ñuy indi soññe googu mooy nañ xam ni liggéey bii nga xam ni moom lañ ànd di ko def muy liggéey sëñ Touba te dañ ko ko jiiñ sax waaye kenn ku ci bopp sa ànd sa sa ndaal ngay duy maanaam wallaay lazim balaa ngeen xam ni rëccu rëccu rëccu wees na rek balaa ngeen xam rëccu wees na rek ñu taq say ñaari tànk bañ la jéey ci biir bàmmeel sëñ sëñ sëñ sëñ Touba dani buñ leen fëggoon ñoom way jiitu ñooñu lenn képp képp moo doon seen yiite. dellu jamono ba ab saa sax te saa la ñu liggéeyal ko yàlla delluwaat fa ñu tëddoon nga xam ni kon lu mat a bàyyi xel la noonu ko maam Thierno waxee léegi ci majaale Shafaawa nga xam ni mooy barabu way texe nii boo ko doon misaal tey jii danga naan mooy barab yooyu nga xam boo fa toogoon tey ñii waxi caaxaan rek ngay wax. at loo mën a ne boo ko dendalee liggéeyam sëñ bi rek. walaay lazim ci wax jooju ngay dellu loo mën a ne nag la ñu wax loo mën a nekk boo ko dendaleeg liggéey Sëñ Tuubaa ji rek ci wax jooju ngay dellu te mbooleem ñi ñëwul ci daayira bi yëpp bu alxames jotee ci waxtu bi leen rek mooy mën a ne bëgg a teel a yeewu dem ci kase bi bëgg ñoo guddee fañ jëm wala ñu woo leen Sénégal ñuy zappante wala ñu ne ci Facebook bi di kar politicien yi képp amul leneen amul leneen amul leneen kenn naafilewul ne ñëpp wax amul kenn ku ñëwul ci daayira bi nga koy laaj sax mu ne te bu doon naafile sax buñ ko méngee waxu waxu waxu sa maam Thierno yi ci sax saxaawa nga jëm bu doon donte naafile la laa wax ndax liggéeyam sëñ tubaab bi ñun murit wallaay lazim moo féete kaw leneen lu dul moom bu ñu nit nag di ñu jëmale ci leneen dul liggéeyam sëñ Tuubaa bi ab naafiq lay bëgg doon ak lu mën a doon nit nag maanaam bu sa xam-xam yeggul fa nga war a mudaarante at ku mënti doon danga naan yam ci biir sëñ Touba tàmbale fa te yam fa te mooy lii nga xam ne moom la ñuy def ci daayira yi ñu bañ a naxante sañu biir waaye sëñ Touba moom kenn mënu kaa nax nañ leen dellu feesal daa maanaam maanaam alxamis sëñ Touba yi guddi àjjuma sëñ Touba yi dañoo war di ko feesal ba mu saf sap ba ñëpp xam ni ñii nga xam ne bu guddi jotee ñu bàyyi seen yëpp am na ku leen defal loo xam ni xam nañ ko dañ koy delloo njukkal te donte duñ ko mën ba faaw waaye képp ku ci tëdd sa kaw lal xaj ah, guddi àjjuma jot ñëwoo war nga war maanaam sa yaram sax waroon na di daw ndax ni liggéey bi demee guddi na nag am na ci yoo xam ni deesu ko wax sax muy gudd ndax li fi jaar yëpp wax nañ ko waaye nii ko borom xam-xam yi waxee génnuk sëñ tubaa gi wóor na sëñ tubaa teg ko woon ci baqenu boppam génnuk sëñ tubaa gi teg ko woon ci tubaab yee ko forcé ne ko par force da ngay génn ndax lu mu bind la wax ko daa àndoon ak ñoom ci mission bi rek waaye ndigal la moo ngi woon keroog ca jàqee daaru xuddos ga ba mu waxee sañu borom ne ko lii nga may jox baax na naam waaye ñee ma gis nii ñu ànd ak la bëgg àndal oh. foofu la mbir ma tàmbalee barke borom tubaa Mbàkke hmm. nga xam ne sëñ ni ko ab ab jiili waxee léegi noonu la demee sëñ boroom dañu ko lii ngay lii ngay sàkku nii bari waa noonu ñu fi jaar sàkk ko nii nga ko sàkkee hmm. waaye dañuy dem ba ci biir woote ndimbal hmm. wala seen bakkan du ko attan waaye déggal la sëñ Tuubaa wax bakkan bi la bindul moom sañu borom moom moom sëñ Tuubaa waaye yaram jeeg jëmm ci at nu natt mun toll bu ko sañ borom garanté ruubi ruubi moom jom ji dékku na ko. dafa day waar de wax ju mat a settantal la. te boo ko toppee 18 safar gii tey jii ñuy wax nii mais bis na boo xam ne sëñ Tuubaa nee na bu bis bu bu 18 safar daan waaj a ñëw yaramum yëg ndax sala sañu borom daan dajale natt yi bu doon fukk la sañu borom da daan multiplier ba mu doon fanweer mu teg ko ci bis bi moom mu woote ci bis boobu sant sañu borom yow ñu lay teg mat mettit nga ciy woo ci sant sañu borom moo tax Sëñ kenn léegi nag la mu daj ci tukki boobu ngir suñu jëmm yi lañu war xam lan la ndakaaru gi li ko fi daal ab zaahir la du baatin néeg baa fa ba léegi néeg ba mu fa ba léegi te wax nañ ni maanaam Sëñ Tuubaa kenn ku ci xam na ni jëmm sañ Abdou Khadre Mbàkke lañ koy misaale ñun ñi ko fekkee ci lépp mag ñi dañ daan wax ni ku bu sa gis jëmmam ji boo gisee Sëñ Abdou Khadre muy dox xam jàppale Sëñ Tuubaa ngoo ci tuutuwaay 1 mètre 20 wala 1 mètre 30. monte ne néeg bu ñu ko doon dugal Dakar tubaab yi dañ ko yett yett ba nga xam ni néeg baa ëpp sëñ Tuubaa ci guddaay ak ci yaatuwaay kon nan la war a mel néeg boobu nga xam ni lu ne lu luy lor nit rek dugal nañ ko ci biir néeg bi uh-huh. moom sëñ Tuubaa moo waxal boppam ne keroog bi mu njëkkee teg tànkam ci biir néeg boobu ràbb bi bënn tànkam oh. maanaam deret ji daa tëb ba si ba tiim ko te looloo gën a néew lu neewoon ci biir néeg bi mm. te wax na ni foofu dem na bay bëgg a dekk jihaat soxna maam jaaraa ko fa fekk ne ko nag fàttaliku la nga la nga waxante woon ak sa borom at la nga bëggaloon jaam yi lay topp boo ko dekkilee tey lu jaam yi bëggoon ci yow rek dootuñu ko am mu takkaat ndigg li xuus yi ne ay biir maa yombaak yooyu moom kenn du ko wax oh. waaye sëñ Tuubaa suul nañ ko suul marmaral ko barki borom Tuubaa Mbàkke tàgge ko oh. sëñ Ba maa ngi jéggul foofu bi de bi mu Mhm. mu tege tànk ba bu ràbb gi sax génn ci bopp bëtt tànk bi dana mhm. wallaahi caaxali góoma fa de mhm. soo xalamee yaari guddi Ndakaaro ba dégg waa jëmbar ma waa nga waaro ci sëriñ bi noonu rek la demee noonu rek la demee yëkkati ah, nañ nag moom ci naaw naaw moom ba ci kaw jaww biñ si barki Seexul Xadim tëbbal sëñ Tuubaa wóor na Seexul Xadim la fa ne ci ay mettit li ñu ko mettitil maanaam nee na nee na ëpp naa sax di nettali ci làmmiñ ngir sañu jëmm yi ñun ñëpp mu dellu si nag indil ñu xéwal bu rëy googu nga xam ni day wax ni maanaam eh, bi mu koy xisaal ci jawfal faraa bi mu koy xisaal ci jawfal faraa ba mag ñi ne ko jawfal faraa mooy lan day leen mooy rab woowu nga xam ne tey jii bu rëbbkat bi demee ci àll bi rab la woo xam ni maanaam mbooleem li rëbbkat di wut ci àll rek daa daje ci rab woowu nga xam ne bu ko rëbbkat jabee day dëpp jaratul muy dem mu ni loolu jëlee na ko ci sañu borom bi nga bi mu ñëwee lépp daa ñëw woon nag ñun jaam yi ne kaay leen ñu ànd bége te mooy màggal gii feet woote noonu la ko sëñ Saliou Mbacke waxee ak feet la ak feet la màggal gi da ngaa war di ree rek di secret te taxul muy dem noonu la ko sëñ waaye xoola moom gore gore li mu gore nga xam li mu daj yëpp moom moom dellu si ñu ne ñëw leen nag ñu bége kon mbir mi dañoo war a seetaat daal affaire wóor na sëñ Touba dañoo war a dañoo war a maanaam maanaam li may saa su ne rek maanaam faw ñuy toog léeg-léeg maanaam jël sëñ bi teg ko sañu wet ba pare peese sañu ñaari jëmm yi daal xool li ko sëñ bi moom li mu jaraloon suñu jëm yi ak ñun lan lañ jaral sëñ Touba ci liggéeyam bi wóor na sëñ Touba Mbàkke léeg-léeg dañuy toog sañu kër yi maanaam jàmbat man de wóor na sëñ Touba daf may dal génn dem guddee lool mu metti lool nag ba léeg sax wóor na sëñ ñuy daawal oto di jayeexu waaye bu delluwaatee ba toog jëlaat sëñ Tuubaa mingale ko samay jëmm ji barke sëñ Tuubaa Mbàkke damay tuub la ma santiroon ci yoon bi wóor na Seexul Xadiim nga xam ni kon li la nit ñi li la ñuy gis sax di la yërëm ndax léeg-léeg ma dégg ko ci taalibe yi sëñ Bàmba de da ngaa war nangam ak neexit la goo xam ni barke sëñ Tuubaa bu ngeen ko mosoon bu ngeen ko mosoon barke sëñ Tuubaa Mbàkke fu ngeen gis léegi sëñ Tuubaa da ngeen di fëx loolu nag yàlla na ko ñëpp mos a daj ko waaye ñëw leen ñu feesal daayira bi di joxe addiya ko te kenn ku ci nekk jàpp ni wóor na sëñ Tuubaa Mbàkke boo manqué ni ko gaa ñi waxee addi eh, mbiwul sëñ Tuubaa du dem ni ko Assane di waxee nag juróom-ñaari soror yooyu ku ci jëfatul dootu ci jëf de ka ko santaane woon dem na sooroor ya taxaw na kër sëñ Tuubaa gii ñu woote bu subaa lay dem si bu mujj bi suba lañ koy def lundi liggéey bi tàmbale miir woo nag ku ci jëful woon dërëm moom miir bi waxatuñ ko xanaa leneen te dootul taxaw barki alxuraanul karim balaa yàgg ñu def fi loo xam lu gàccew la murit nag bu fi ne ci Argentine gi ñu liggéey kër Sëñ Tuubaa ba mu yegg sa tànk tegu fa sa dërëm demu ca bokkoo ci ñey soññe barki Seexul Xaddim bu keroogee bu ñu la tànnee nga dégg leneen xamal ni yaa ko teg sa bopp waaye moom gaañaa ngay dox sañu mbokk yi ñu nekkal ci dëkk bi nag ñuy ay jullit ni ñun yaakaar ku ñu mën a yaakaar lañu war a ñoom lañu war suñu diggante ak ñoom mooy ñu soññe rek di dox di dem waaye kenn du Sëñ Tuubaa maanaam di natable sax di natable sax barki barki sëñ Saalu Mbàkke keneen ku ku dend ak sëñ man jàpp naa ne ab bàkkaar la ci ab murit kenn koo mën a doon yéene lañ la fa nga bokk koo mën a doon yéene nañ la aj ajjana koo mën a doon ñu toroxal suuf aj la ca kaw waaye sëñ Tuubaa mi ñu am ñun wóor na sëñ Tuubaa dañ kaa war a yeesal ba mu yees làq ko foo xam ni barki Cheikh Xadim bët sax du ko teg ndax li mu doon kenn xamul lu mu doon sëñ Tuubaa rek a xam lu euh, sëñ rek xam lu mu doon mhm. ni ma ko waxee démb rek te loolu waxi sëñ Saalu Mbàkke la ba léegi mu ngi boor ci nocc yi sëñ Saliou Mbacke ba mu soññee ci képp fenn fu fi ñaar féete kenn ki gën kaa fonk moroomam keneen ko du mu noppi noppi mukk di siin li ko moroomam féete kaw ba faw da caa teg daal ne sàllaaw de ajjana gee ñu jëm de nga xam ni amul weer amul bis amul waxtu gaa ñu baax ñëpp fa la daje sëñ Saliou Mbacke dafa xam ne da caa teg ne mbooleem ku jàppoon ci màggal ki mboolem ku daan jàpp ci màggalu sëñ Touba gii ñoom waa ajjana de fa ñu nekk ci genn misaal rek la ñuy xamee ne fi ñu nekk barab bi ñu nekk def nañ fi at mooy bu màggal gi dellu siwaatee sañu boroom da leen di fekk fa ñu nekkoon di leen di joxi xéwal ba waa àjjana naan waa lii xew lan la ñu ni gaaw 18 safar ñu jàppoon ca màggal gi loolu nag moom gaa ñi fi doon wax téere yeeg yooyu gaa ñi jàng amul kenn ku fi mën a indi ci taareex ne mës nañoo bind ci ci këyit gu weex at mbind mu ñuul ne am na ko ko sañ boroom mu sa may ba nga génne ko sa gémmiñ dale ko ci yonent nag nga xam ñi baax ñëpp fa lañ nekkoon te sëñ Saliou Mbacke mi ko nettale de kenn ku ci ne xam ne dañ nag réer kon li ñu am lañu xamul lu mu doon moom sëñ Touba loolu nag boo amee lu kenn xamul lu mu doon mais ku baax damay wax ne bu ñu yoroon fukki loxo dañoo waroon dañ ka war a def na ya sadi sëñ Tuubaa baax na baax waaw yéeme na lool moom daal li ma ciy dolli moom wax dëgg yàlla moom maa ngi jégalu ndax jëwriñ nga xam ne moo topp seen ko war a tax ba pare ma ci dayaat kàddu waaye ñun ñëpp rek nañ gën yàlla yàlla moom sàkk yooyu sàkk